baax leen di fay. ñu la ci Sénégal ak Kawtef. maa kontaan. donc euh, ñu gis tey sa présence ci euh, affaire bi OMG di def ma bëggoon xam ban relation nga am ak moom ba mu jaral la nga déplacé wu ñëw. waaw ah, OMG moom sama sama doom la et je l'apprécie beaucoup ah, vraiment euh, pour man c'est l'une des artistes yi nga xam ne ne que ne ñoo gën a talentueuse si dëkk bi comme ni ma ko waxee sànq bi ma jëlee parole xale bu am bëgg. li muy def la xale bu bëgg lu muy def la xale bu mën lu muy def la en plus de ça elle est euh, pour man elle a beaucoup de cran parce que dafay essayer lu bari elle essaye des choses et euh, voilà man je l'aime bien elle a beaucoup d'originalité nan nga gisee album bi douze titres yëpp en français c'est magnifique man je pense que ne artiste amul amul amul barrière La musique n'a pas de barrière. Donc aujourd'hui, moi je pense que euh, le fait euh, euh de, de, réaliser un, un, album comme ça en, en français, c'est important parce qu'elle veut, elle veut s'ouvrir au monde. Elle veut aussi que d'autres gens euh, comprennent sa musique, euh, comprennent ses, ses, ses, messages. Je pense que c'est hyper important. Et moi j'ai écouté vraiment, je ne savais pas OMG ni le J'étais séduite par sa, par sa voix. franchement elle est elle est polyvalente elle est daal. je je l'adore soo euh, boo amoon euh, conseil boo ko jox baa ngi xale la mais mu ngi def jéego bu baax ci musique te am na yeneen xale yi ñëw tey boo amoon loo koy conseillé lan lay doon. man déggoo tout à l'heure dama nekk ne pour man euh, quelqu'un comme OMG xam nga mën nga nekk xale. mais nga mun a inspirer sa génération. et je pense que elle loolu moom moo ko dal moom mun na inspirer génération parce que pour man elle est très bien Elle, elle sait ce qu'elle veut, elle est passionnée par la musique et elle est, elle, elle tout ce qui tourne autour de son image daf ko daf ko dafa xam nag fan la koy teg ci temps franchement macha allah pour man et c'est quelqu'un qui travaille très très bien et qui comprend comment par exemple on doit faire avec la musique parce que c'est c'est artiste bu bu bu bu plein la quoi elle a pour man elle a beaucoup beaucoup beaucoup de potentiel elle a beaucoup d'avenir voilà donc euh, mi ngi ci yoon bu baax pour man d'ailleurs artistes yu ndaw yi dañu war a inspiré wu ci moom waaw. merci ñu ngi lay la dafa moom sama sister la professionnalisme la xam na moom euh, wax dëgg yàlla nit bu baax la euh, xam na sama soxna xam na sama njaboot ak yëpp donc sama sister la Suwaado ñoo ko yar mu nekk jigéen bu am na talent. ñu dénk ñu ko tamit yoon la lépp lu ñuy def rek war nañ si mën a dugal loxoom pousse ko dooleel ko. Euh, ñu gis ni souvent lu gën a bëri ci woykat yu bëri yow yaa leen di bindal donc bind moom dafa mel ni dañ la ko jali loolu noonu noonu doole wala da nga jàng wala dara dara yàlla la rek affaire yàlla la rek comme comme on dit yàlla moo def ne peut-être relation yi may am ay ñoom moom mooy tellement flexible ba nga xamante ne dañ may wóolu. yàgg naa liggéey ak Soirou ak ñeneen ak ñeneen juste que lu may wax rek du man maa dàq bind Sénégal juste que yàlla moom mooy def ne que peut-être lu ma bind mu neex nit ñi parce que lan dama am benn relation boo xamante ne man ak ñoom dafa jéggi sax liggéey waaw dafa jéggi liggéey dañuy yabante dañuy tooñante donc bu ñu amee dara automatiquement man la xalaat donc bu ñu ma xalaatee su ma bindee yàlla mooy def mu am barke mais je ne suis pas le meilleur. dañu gis ni tamit da nga nekk artiste boo xam ne xeeboo muy ki nekk ci top bi ba ci Viviane nekk ki ci suuf ba seen petit gallé ñëpp ngay bine gis nañ li ngay liggéey ci euh, Moustapha Naam ci son bi moom aussi mu xam nga dafa nekk loo xamante ne du wax boo xamante ne pour mën a ah, bon parce que kenn warut a kenn ñun ñëpp ñoo yem ci taxawaay yàlla ñun ñëpp a yem ci kanamu yàlla amul kenn ku gën kenn donc bu yàlla bindee jaamam teg ko rek am na lu tax donc li yàlla def ci jàmm boobu moom rek moom moo ko xam donc boo xeebee amaana xeeb nga ki nga xamante ne xaritu yàlla la on sait jamais moo tax duñ xeeb benn doomu aadama dañuy jàpp na ñoo gën a yées sax ñun. est-ce sama carrière commencé gul xam na ko commencé gul du yàgg rek léegi rek maa ngi nii di ñëw ak beneen son bu tudd laa laakee bindal loolu laa laakee. sama carrière commencé guñ jàppale ne man jeune talent la maa ngi nii booy bu ndaw. <laughs> li ñu fi indi sax muy OMG ñu am ci moom contentement bu rëy ci liggéey bi vraiment di ko gunge di ko ñaanal yàlla succès bu ko jik euh, baxaw mii fi taxaw ni ngeen ko seedee sànq moom it di jàppale ñëpp nekk nit ku baax nit ku oyof nit ku am yitte si nit vraiment moom daanaka lu sotti sax ci musique sénégalaise bi loxoom jógu ci donc euh, di am contentement bu rëy di taseek ñoom ñi ñëpp tey fii si bisu OMG bi vraiment di ko ñaanal yàlla album bi doon plein succès te gis naa ne macha allah segam nit ñi ñoo wuyu si en masse donc Sénégal dinañ accueillir avec grand plaisir albumam bi. Euh, bëgg nañ tamit xam Sénégal Sowadoo lan nga ñuy waajal aussi. no bi pa moom euh, du ma répondre te si question bi xam naa ne dama naan nañ joxante rendez rek incha allah du yàgg. gisee album bu douze titres la génnee mhm. yëpp en français ñu gis yow souvent say woy c'est en anglais aussi donc loolu la lay lay def couverture bi nga xam ne artistes yi plaisir ça di gis loolu parce que le monde maintenant moo mel euh, les gens ils sont internationaux les gens ils communiquent à travers la musique kon tey yoon la musique daal di indi français <laughs> anglais espagnol dañ ci tollu les gens sont en demande les gens ñi ngi euh, ñu ngi xool public bi di joxe te dafay yoon ñu war di mën a communiquer ak ñëpp ñi ñu dégg ñi ñu dégg ñi ñuy gis ñi ñu dul gis et ça fait énormément plaisir de voir que les artistes ñu ngi communiquer avec le monde te yàlla na continuer kii moom suñu grand bi matador suñu grand bi ñun ñëpp mi ngi nii suñu grand. bi tey lu weex tàll. ndeysaan moom jàmm rek lay wootee. Nelson Mandela. non dégg <laughs> gisee ñoom El bi gis ñoom OMG ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. Hmm. xam ne ñi moom moo leen defar. Hmm. waaw waaw waaw waaw mais OMG euh, muy dañ du ñu def lu ñaanal ko euh, di ko féliciter di ko gën a encourager parce que jàmbaar la xam nga hip hop ak musique si boppam en général au Sénégal bu nga évoluer si dafa metti trop surtout jigéen ñun ñu gisoo ci début ba fi mu egg nii dañ koy dañu fier dañu am fierté bu mag ci moom ak ay moromam yëpp jigéen yi nekk si hip bi mais particulièrement moom et suñu teewaay tey c'est pour jël dëggal jëmmal ko e di ko ñaanal yàlla euh, mu egg fu gën a kawe fii mu nekk nii parce que tey euh, fierté waxuma la euh, musique urbaine wala hip mais fierté Sénégal yëpp

waa li ñuy wax mooy ni euh, euh, société bi euh, amul kenn kuñ ci war a doyee daal nit ku ci nekk rek mën na amal njëriñ société bi mais am na nu ñu leen xoolee am na nu fu ñu leen teg du ñu mën a du ñu jariñ réew mi te mais am na nu ñu leen di téye bi ëllëgu réew mi mi ñuy wax du yee benn couche jeune wala benn kii rek jeune ñi nekk si Sénégal yëpp dañu war a comprendre que ni ñoo ñëpp ñooy ëllëgu réew mi et ces la là euh, tey exemple lañu pour yeneen jeunes pour wane ni du fuñ la dëkkal rek nga dem fa toog non mën nañ la dëkkal fenn nga bañ fa nekk wane ni mën nga nekk leneen et loolu mi ngi commencé ci hip hop bi ñuy def ba ñuy tàmbali Euh, kenn teguñu woon deer teguñu woon fenn booy rappeurs yu ñàkk fayda yi ñu bëggul dara ñi bande yi salte yi drogue yi wax bu gën a salte teg nañ ko hip hopeur Sénégal mais dem nañu ba xam ni hip hop buñ ne lañu kuy wax dëgg kuy taxawal askanam ku bëgg développement réew hip hopeur yi la ñuy njëkk a cité donc loolu moo nekk ci ci fépp jeunes yooyu noonu ku nekk am nga jaar-jaar muy Matador muy keneen ak keneen euh, peut-être nag hip bi moo nekk ci mbedd mi mbedd moo def mën na yàq mais mbedd mi tamit mën nga ci defaru hip bi nag alalu mbedd la te li mu defar ci réew mi ñu yore réew mi sax xamuñu ko et vraiment ces jeune la dañ leen gën a encouragé di leen wax ñu gën a gëm seen bopp gën a gëm seen liñ ci li ñu nekk xam ne dëgg la te mën na leen a jariñ jariñ seen i waajur jariñ réew mi ëllëg quoi merci